voilà chers internautes euh, sans limite sn.com euh, se lance dans tout ce qui est beauté bu ne beauté nag euh, li ko yëkkati moom mooy jigéen dañu dugg ci li nga xamante ni moom mooy gën a yokk taaru jigéen que ce que soit nga yor li nga xamante ni moom moo di cosmétique nga yor li nga xamante ni moom moo di salon de coiffure moom moo xam salon de couture la lépp loo xamante ni rek day yokk taaru beauté sans limite sn.com def ci yëngu léegi numéro commercial yi nag moo ngi noonu bu njëkk bi 33 la 820 42 27 beneen bi 77 la 309 31 31 moo moo ngi noonu en bas de l'écran képp koo xamante rek képp koo xamante ni rek bëgg nga ñu defala li nga xamante moom moo di publi reportage n'hésitez même pas à appeler sur ces deux numéros là dinañ la fekk si ba fa nga nekk defal la publi reportage bu jéggi dayo alors tey nag suñ première émission dañ koy ubbee ak ki nga xamante ni moom moo di Aïcha Beauté euh, nekk fële na la ca Parcelles Assainies unité 21 moom nag day yëngu ci li nga xamante ni moom moo di euh, beauté ñu ñëw fii ki nga xamante ni moom moo di Max moom moo nar a teg tey jii ni ci table bi produit de beauté yi nga xamante ni Aïcha moom lay yëngu pour genre ñi nga xamante ni moom moo di euh, xale yu jigéen yi Max dañ lay bàyyi nga présenter produit yi nga ni moom nga teg ci table bi pour Aïcha Beauté waaw salaamaaleykum Sénégal dama fi ñëwoon euh, présenter leen euh, gàmmu Aïcha Beauté Aïcha Beauté moom lépp la indi lépp luy taara jigéen rek mi ngi fi indi na savon savon pour teint marron boo xamante ni day seetal sa yaram képp kuy teint marron boo fi bëggee teint bu baax bu set boo fi ñëwee sangoo savon teint bi incha allah rabbi sa teint dina set andi na aussi euh, papaya papaya pour teint bi bii deux jours nga koy sangoo sa teint mel nit lem mel ni tàngal mànd mi ngi nii mooy euh, savon papaya bi macha allah bii mooy euh, kii bi savon tomate bi bi tamit pour ku sa bëgg sa teint tax du am benn pour crache yëpp boo ko sangoowee sa tin day weex tàll set wecc waaye màgget mooy lait de bi. mooy lait de corps bi boo waaw sankoo ba pare. ba kii macha allah mhm. nettoyé sa yaram. Mhm. bii nga ciy teg bi mooy lait de corps Aïcha Beauté bi macha allah boo ko sangoo da ngay weex tàll mhm. set wecc ok. daa mel ni bi mooy savon noir bi. savon noir bi aussi boo ko sangoowee tonto tafaa da ngay mel ni per da ngay weex tàll set wecc macha allah bii crème de visage bi la aussi am na crème de visage. crème de visage bi boo paree guddi gi boo raxasee sa kanam nettoyé ko mu set ci nga koy teg boo war a tëdd ci nga koy teg boo yeewoo sa kanam ratax bann saa sa jëkkër gën la fan waaw bii mooy euh, jaune d'œuf bi bi jaune d'œuf bi pour koor yi laag yooyu tànk yeeg loxo yeeg yëpp mi ngi noonu genre mi ngi noonu <laughs> loxo tul ci nga koy def tontoo tafaa mu weex taal mi ngi nii avant et après dafa am avant am après mi ngi noonu na ko ñëpp xàmmee mm-hmm. ay cha léegi bii mooy euh, couleur bi macha allah ñu dañuy def ay recherche partout dans l'Afrique. Mm-hmm. yëpp day dem euh, yemul fi dong. Ah. parce que ñëpp dañuy woote Aïcha beauté bi partout euh, dans le monde. bii nag moom mooy savon bi nga xamante ne nii da ngay jël di ko sangoo tout le temps boo bëggee teint marron boo bëggee teint blanc yëpp dal moom daf moom dafay maintenir sa teint. ok moom mm-hmm. dafay maintenir sa teint macha allah ba nga am teint bu baax. pot bu mag baa ngi aussi ku ko bëgg sakkanal sa savon da ngay jënd pot bu mag bi rek bàyyi sa kër mm. di sangu mën nga cee sangoo sangoo sango ba doyal sa teint day gën di rafet foo génn ñi ñi naw la parce que teint tamit ci la ñuy nawee jigéen aussi bon euh, kii baa ngi nii pour bi euh, diw waa kay taxaw benn place jigi noonu waaw pour teint waa gel de douche ngi nii aussi mooy gel de Ah, maanaam balaa ngaa kii da ngay da nga koy teg sa kaw pour yolomal sa yaram pour sa yaram mu léger mu rafet ba dee macha allah <laughs> yépp a ngi nii daal gam baa ngi nii gam bi daal mi ngi nii dox dajale lépp a ci nekk hmm. lépp savon baa ngi ci lait de corps baa ngi ci crème de visage baa ngi ci yëpp a ngi ci savon beeg lépp a ngi ci ku ci bëgg da ngay ñëw chez Aïcha Beauté mi ngi parcelle euh, unité 21 en face euh, Fallou Bache baa ngi nii boo fa ñëwee rek boo ñu woowee ci suñuy contact nan la wuy incha toppatoo la sa yaram ba mu normal. Euh, salaamaaleykum produit yi moom macha allah ba ma ko dalee utiliser ba léegi aw ma ci réccute déjà auparavant dama doon am ay acné ay boutons et tout déjà gis nga ma léegi maa ngi nii macha allah. Aïcha Beauté daal jaaraama ku ko bëgg na nga ñëw unité 21 boo ko woowee rek dina la indiquer wax la fi mu nekk waaw produit bi moom doo ci am benn réccute man ba ma ko dalee utiliser ba léegi gisuma ci benn inconvénient macha allah. sant yàlla. Euh, ay Beauté di produit bu bien. parce que su ba ma ko utiliser ba léegi sama peau amul égratignure amul fissure voilà c'est bon daal. produit yu baax la yu efficace am na lait de cor soin de visage am na savon tout bon ça va quoi avec ma peau. waaw boutique Aïcha Beauté moom dama ko gis ni baax na ci jigéen ñi parce que jigéen balaa baax nga sangu ba set. di xeeñ du neex yor teint bu baax yaa xam teint marron la wala teint bu xees mais na maase mais loo ci mën a bëgg rek boo ñëwee sa ay Aïcha Beauté di nga ko am parce que saabu yu baax yaa ngi ni ma dendal am na defe naa papaay am na leneen ak ak saabu yi xam mooy defar teint wu jigéen parce que jigéen xam taamu nañ ci yaram bu baax taamu nañ ci ngay teg ay ongle yu baax émaay ko bu mu rafet loolu la jigéen bu ko bëgg da ngay ñëw Aïcha Beauté moo koy daggatee ku bëgg sa Saint-Valentin wala sa jëkkër di la jege jege bu nooy te neex da ngay ñëw Aïcha Beauté defar sa teint ba mu baax bu ko defee sa jëkkër du la tente <laughs> waaw jigéen daal li ma ci xam bëgg lu baax pour defar ba mu baax am na ay parfum am na lépp loo xam jigéen da koy soxla donc kon ay Bouté daal jigéen ñi ngi leen ciy xaar mu ngi fii ci euh, unité 21 jàkkaarloog Fallou Bass yeex naa neex naa xàmme te li ma ci gën a neex mooy prix yi nga ne moom la Aïssa Bouté di jaay c'est abordable la ñuy wax prix yomb la kon defe naan jigéen yéen ci des Aïssa Bouté ngi leen di xaar ci ay saabu yu baax ci ay parfum yu baax greffage tegal la ay verre décoré ko defe naan loolu dina neex kon ay saabote daal moo koy daggate fii ku fi ñëw dina toj maa ngi leen di xaar na neex comme ni ma leen ko waxee sànq rek boo ñëwee ci Aïcha Beauté lépp loo xamante ni day yokk taaru jigéen rek dañ la koy defaral euh, ba mu baax euh, ki nga xamante ni moom moo di Samba nag moom moo nekk ci boutique bi moom mooy def lépp loo xamante ni pose la wala tracé li nga xamante ni moom moo di crayon wala pose ongle ba ci sil euh, Samb moom moo yor wàllum liggéey boobu noonu moo ngi nii gis ngeen nu mu koy defee macha allah. mi ngi noonu si Aïcha macha allah xale bu jigéen bu ci bëgg time dinaa yi fu mu génn ñi ñi naw ko daw si fii ci Aïcha Beauté mu topp toolu macha allah. su fekkee da nga bëgg a maintenir sa teint boo ñëwee na ko maintenir savon yaa ngi fi lait yaa ngi fi su fekkee da nga bëgg yokk sa teint boo ñëwee dina la jox yu baax nga macha allah nga sangu nga diwu yëpp a ngi fi. kon daal jigéen ñi mu ngi noonu ay Beauté mu ngi leen di xaar ci gaam yi yëpp kon jigéen ñi nga xam bëgg na lu baax te bëgg seen yaram baax te bëgg def lu baax teew leen ay Beauté sorewul te njëg yomb na jaayul quantité qualité lay jaay foofa toj. chers internautes mu mel ni gis ngeen li leen. max tegaloon ci kaw taabul yi muy ay sabon ak li nga xamante ni moom mooy ay lait pour yokk taaru jigéen mais ki nga xamante ni moom moo di Aïcha dañu du yam foofu xale jigéen yi ndax boo ñëwee boutique am dina defal li nga xamante ni moom moo di pose que ça soit ongle wala cils wala leneen loo xamante ni rek jigéen da koy soxla pour yokk taaram ba tey yamul ci foofu bu la defelee lool nee na da lay ñawal lu rafet daati lay sañsel képp koo xamante nii rek soxla nga ko da composé ci numéro de téléphone am yi 76 691 17 56 wala nga composé 79 06 moom nag mi ngi situé wu fële na le Parcelles Assainies unité 21 wala fële na le nga xamante ni moom moo di ca Yoff ci Senelec bu bees bi képp ku ko ci woo rek incha allahu rabbi bépp produit boo soxla ci Aïcha Beauté dina la ko livrer